asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan sunu boroom di ñu defal jàmm fi ñu mën a nekk sunu xikma bi nag tey day wax ne la yakfi an takuna saaxiba aqlin jayidin al muhim an tastaxdima haza al aqla jayidan xakim bi nee na du doy rek nga ne boroom xel mu rëy nga ni ñi naan yi kii de nim amee xel ñi kii de xel mi nim rëyee lool loolu kese doyut waaye lii am solo mooy xel moomee nga jëfandikoo ko ci say jëfin ci say waxin ci say jëflante yi ba lépp lu nga xam ne nii moo la wër la la war ca moom nga mën koo def la la war la nga war a moytu ca moom it nga mën koo def sa digg yàlla sa digg nit ñi sa digg ak mbindeef yeneen yi ci àddina bi bu booba ca la ñuy doog a nangoo ne yow mii am xel am nga ko waaye ku amoo xel te jëfu ca waxu ca nit ñi li ñuy jàpp mooy amul am xel te loolu mooy dëgg am xel jumtuwaay la su la ko yàlla joxee te xel mu rëy sax lañuy wax ni képp ku judd moom da nga amum xel waaye nag xel mu rëy ne ba yaatu ba ñëpp di wax ab rëyaayam wala rafetaayam waaye nag loolu du ko taxa am njariñ lu dul danga koo jëfandikoo ci li nga xam ne mooy say yëngatu loolu la xikma bi indi woon muy lu am solo di leeralaat bu baax rek xel ni mën a amee solo te bokk na ci xel yi gën a gàtt ñi nga xam ne dañuy xalaat nu ñuy ba mën a lor seen mbokkum doomu aadama waaye seen xel gàtt na ba tax du jàll xalaat ne waaye kat lii su ma ko defee lii mën na caa ñoom daal li ñuy def lañuy xalaat waaye la cay topp duñ ko xalaat mooy nuroog rek li wolof di wax xamal la ngay wax waaye nag bul defee ne dangay daal di xamaale leen lay tontu même boo ko xalaat war ngaa xalaat lu jaadu ci tontu lii nga wax ni bu dee jëfit kasaali ka boo jëfee dara moom war ngaa xalaat lii ma def buñ ma doon delloo lu mel nam lañ ma war a mën a delloo loolu dina la dimbali ba nga mën a rafetal jëf rafetal wax bu ñu fàtte mukk nag di julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ñoñam ak saxaabaam allahuma salli wa sallim ala sayidina wa maulana muhammadin nabil umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima ñu ngi sant di gërëm di jégglu wasalaamu aleykum wa